Nous sommes en Casamance. Nous sommes à Ziguinchor. Nous sommes à Néma. Nous sommes devant la maison du président Ousmane Sonko. Voilà, nous sommes à Ziguinchor. Nous sommes à Ziguinchor devant, nous sommes dans le domicile du président Ousmane Sonko. La tanière du lion ici à Ziguinchor. Sérénité. sérénité, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko qui s'apprête à sortir et à aller à la rencontre de ces bonnes dames qui, depuis plusieurs jours, au moins cinq jours, occupent cet espace au champ des rythmes et musiques culturelles, traditionnelles et mystiques euh, de la Casamance. Nous sommes ici, dans la tanière du lion. C'est pas aujourd'hui Cité Kergorgi, mais c'est le NEMA. Le président Ousmane Sonko, il est là. Le président Ousmane Sonko, il est là. Téléphone. Mingi nonu. Mingi. Mingi nonu. Mingi nonu. Mingi nonu. Mingi Président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko. Président Président il est là Président Président il va rencontrer il va rencontrer ces bonnes dames il va rencontrer ces bonnes dames il est là président ngi noonu le président Ousmane Sonko le président le président Ousmane Sonko. xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu go. cette grande avenue de joie et de liesse populaire, la grande avenue de Neymar déroule le tapis au milieu des gravats, les barricades levées, le président Ousmane Sonko en promenade parmi ses siens. Mi président Ousmane Sonko. regarde derrière le feu. Et derrière le feu, il y a le chef de bataille avec les forces de sécurité. Le feu de la dignité. Le quartier du président Ousmane Sonko. Mais maintenant, vous pouvez remarquer, à la place du champ de bataille, il y a une liesse populaire avec le président Ousmane Sonko qui est en train de revoir cette masse, cette jeunesse qui le protège jour et nuit. Cette masse que j'appelle la masse La masse silencieuse, la masse de la dignité, le président Ousmane Sonko ak xale yi commune bu Ziguinchor Président Ousmane Sonko ana ñi waxoon ni président nekku fii président ngi nii génn saafonteeg xale yi le drapeau vert jaune rouge frappé de l'étoile au milieu mooy flotté du mësa président Ousmane Sonko ñoo ngi Ziguinchor ñoo ngi la ville de la dignité ñoo ngi la capitale de la résistance Bourok City Bourok City xale yaa ngi noonu ñii ñoom ñoo géré woon sécurité président Ousmane Sonko ñi ngi continuer di ko géré yéen a ngi seen xale yële nekk ci ginnaaw taxaw fixe nekk ci parce que c'est des positions à ne pas laisser xale yaa ngi noonu taxaw ci dëgër malgré seen jàmbarte malgré li seen xol ne ñoo ngi noonu président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu Ziguinchor le véhicule en reculant le véhicule marche en reculant mi ngi noonu le maire de de Ziguinchor. xale yaa ngi way bul ma jooyloo way naa la bul ma jooyloo City président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko Ziguinchor Ziguinchor Ziguinchor ne maa ngi nii le président Ousmane Sonko. mi ngi noonu voir la réaction des forces de xale yi ñoo ni président da ngay dellu ci kër gi xale yi ñoo ni président da ngay dellu ci kër gi booy yi seen barricade yi seen bakkan lañ ci teg booy yi seen bakkan lañ ci teg président mi ngi noonu président Ousmane Sonko xale yi yëkkati nañu barricade yi yaa ngi noonu barricade yaa ngi noonu c'est en flamme c'est en flamme booy yi nee président fii fi jàll de amma amma Ziguinchor Ziguinchor a ngi nii président Ousmane Sonko booy yaa ngi noonu tenir les barricades yaa ngi noonu tenir seen ay position booy yi nee nañ président bëgg nañ la waaye fii doo fi jàll mi ngi noonu président ngi noonu booy yi ñu ngi tenir fi ngeen di seen noonu mooy hôpital régional bi FDS yi dellu nañ ginnaaw bu baax a baax président Ousmane mais combattant yi na am des fële. mi ngi noonu yéen a ngi dégg ñi ngi naan combattant yi na ñu des ci ginnaaw. mi ngi noonu Ziguinchor xale yi Ziguinchor yaa ngi nii booy yaa ngi nii le peuple de Ziguinchor. La revue des troupes. Président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko boy yi nee nañ na bi dellu boy yi ils tiennent à protéger le président nee nañ ko dellul yéen a ngi koy gis noonu ñi ngi bumax oto bi ñi ngi bumax oto bi le le véhicule marche en reculant boy yaa ngi nii détermination détermination mbëggeel a ngi nii a ngi nii xale Ziguinchor yaa ngi nii nee nañ président dañoo barricadé bàyyil ñu delloo la moo xale yaa ngi nii il tient tellement au président Ousmane Sonko yéen ngi dégg déglu leen ambiance ngi noonu mi ngi noonu ça c'est les remparts de Ziguinchor ñoo ngi noonu les marcheurs de nuit de Ziguinchor ñoo ngi noonu xale yaa président Ousmane Sonko président ngi noonu mi ngi noonu président dafa génnoon président dafa génnoon pour s'affronter xale yi nga xamante ne ay fan a ngi fi xale yaa ngi taxaw di jàmbaarloo gay président ngi noonu président ngi noonu président ngi noonu la marche victorieuse kaw barricade yi xale yaa ngi noonu mi ngi noonu doxantu seet si xale yi président Ousmane Sonko président président Ousmane Sonko. président Ousmane. liesse populaire la joie de ces jeunes yi topp président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi ngi noonu xoolal président dugg na noonu mi ngi noonu comme je vous ai dit tout à l'heure da di tolluwaay boo xamante ne président Ousmane Sonko moo doon doxantu pour revoir un peu le dispositif li booy demee itam sargal leen euh, nuyonte ak ñoom ces bonnes dames yi fi nekk depuis ay semaines depuis ay jours ñi ngi fi président Ousmane Sonko pour euh, doxantu tuuti saafonte ak ñoom échanger un peu ak ñoom on va vous donner une petite exclusivité parce que président président Ousmane Sonko préparez nekk ci internet bi xam leen ni président nee na ma man mi Ibrahima Diallo man mi nekkal leen fi président nee na naa leen wax ne kontaan na na ci yéen gis na engagement bi gis na concentration bi président remercie tous les patriotes du Sénégal d'ici et d'ailleurs nee na bu baax a baax ci yéen soldats yi fu ngeen mënti nekk président kontaan na ci yéen président Ousmane Sonko nee leen jërëjëf président Ousmane Sonko nee na leen mi di xool mi ngi leen di gis seen liggéey am na solo lool la ma président wax àggale naa leen ko d'ici quelque temps dinañ ci dellu si waat waaye mi ngi nii le président l'espoir du peuple l'espoir de l'Afrique mi ngi noonu doon seet si juste nuyonte ak femmes yi nga xamante ne nekk nañ fii ay jours et jours à ses côtés fii nii guddi ak bëccëg di veiller di ko ñaanal nekk ak moom di souffrir ak moom ñoo nekkoon fii président génn di saabonte ak ñoom ay milliers de jeunes yi nga xamante ne les guerriers de Ziguinchor ñoom ñoo tenir les barricades ñoom ñoo taxaw ñoom ñoo ni président kenn du la fi jëlee ñoom ñoo ni président fii yow yaay boroom ñoo ni président yaay suñu yaakaar tous ces jeunes sont là et les autres qui sont dans les autres barricades aju un peu partout à Ziguinchor ceux qui ont permis à Ziguinchor de résister et de rester debout avec ki nga xamante ne moom mooy seen doom ak ki nga xamante ne moo di l'espoir du peuple sénégalais the eagle one the eagle one la tanière du lion ici à Ziguinchor fii nii ci Némar mi ngi noonu la procession des jeunes la procession des soldats de Ziguinchor la procession des enfants dignes de Ziguinchor ñoo ngi noonu di way H24 di ñuy wéy pour motiver wu xale yu am jom nekkal fii ak président Ousmane Sonko ñu ni ko yow toogal fi nga toog rek fii kenn du la fi jël si fii yow yaay borom Sénégal yaay borom la jeunesse digne la jeunesse patriotique de Ziguinchor ñoom ñoo taxaw gérer affaire bi. ñoom ñoo taxaw gérer affaire bi muy ay mag ngeen xamante ne femmes yaa ngi noonu les bonnes dames sont là les dames de Ziguinchor sont là taxaw H24 ñoom itam soutenir président Ousmane Sonko xale yaa ngi noonu ça c'est la marche de la victoire la procession de la victoire déglu leen ambiance bi ça c'est des chansons guerriers écoutez-moi ça l'Afrique fière de ses enfants Ziguinchor a ngi Ziguinchor est là Ziguinchor est là Ziguinchor est là Ziguinchor est là jeunesse patriotique bu Ziguinchor ñoom ñoo taxaw ñoom ñoo ànd ak président Ousmane Sonko exceptionnel de vivre ces moments historiques ici à Ziguinchor le président Ousmane Sonko génnoon tey saafonte ak xale yi nga xamante ne depuis des jours guddi ak bëccëg ñoom ñoo fi nekk mi noonu Ziguinchor a ngi nii Ziguinchor a ngi nii ñu ambiance ak waa Ziguinchor jeunes de Ziguinchor en triomphe qui se portent, ils se en triomphe ici devant le domicile du président Ousmane Sonko. Ziguinchor a ngi nii Ziguinchor a ngi nii xale yaa ngi béggee xale yaa ngi béggee yaa ngi def procession buntu këru président Ousmane Sonko tey dañoo am bànneex dañoo am bànneex am mbégte gis nga leen ñi ngi rejoindre les positions ñi ngi rejoindre les positions ñi ngi rejoindre les positions suñu maman yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu dellu nañ gérer ji barricade yi dem nañ gérer ji barricade yi parce que xale yu am fula lañ utile ak agréable dellu nañ ci position barricade yi sécuriser périmètre domicile président Ousmane Sonko. Vous venez de vivre en direct, vous qui nous suivez ici ailleurs, la procession et la promenade du président Ousmane Sonko, maire de la commune de Ziguinchor, qui est sorti remercier ces dames venus de toute la Casamance lui prêter soutien venu lui prêter main forte ñëw toog fii ànd ak moom depuis ay fani fan ils sont là elles sont là depuis des jours mais aussi ces jeunes sont là ils sont des milliers des centaines qui tiennent des barricades tout aux alentours euh, de la maison du président Ousmane Sonko mais aussi au-delà toute la commune est gérée actuellement par les jeunes patriotes du Sénégal les jeunes euh, du euh, de la Casamance les jeunes de Ziguinchor, les jeunes du Sénégal venus de partout. Ils sont là, ils se viennent de retourner au niveau des barricades. Et de ce côté-là, vous voyez l'ambiance. C'est les bonnes dames de la Casamance, ces bonnes dames qui ont fait le déplacement. Elles sont là depuis des jours, elles chantent, elles dansent, elles veillent. Elles veillent sur l'espoir du peuple sénégalais, elles veillent sur le président Ousmane Sonko. Vous êtes en train de voir ceci, c'est historique. Nous sommes à Ziguinchor, Ziguinchor, fi nga xamante ne xale yi wax nañ président Ousmane Sonko fii yow yaa fi moom fii kenn du la fi bund xataatal fii mooy Ziguinchor la digne Ziguinchor bi nga xamante ne dignité la ñu woote buntu këru président Ousmane Sonko ce monde est là ils sont là ils sont venus soutenir le président Ousmane Sonko et le protéger défendre le projet protéger le pros loolu mooy seen devise président du gàdd na léegi léegi euh, ci biir këram waaye xale yaa ngi nii waaye li ngeen di gis nii as tuut la rek ndax xale yaa ngi ci barricade yi xale yaa ngi fépp fi nga xamante ne wër na kër gi euh, à des centaines de mètres à voire 500 même kilomètre tout à euh, des forces de sécurité dégagé nañu lépp président dem rencontrer ces jeunes là wax leen merci vraiment parce que aussi nitu bu am reconnaissance le président Ousmane Sonko maire de la commune de Ziguinchor euh, tey lii moom moo fi amoon muy la promenade surprise surtout mais itam visite bi nga xamante ne président dem na def ko ak ñi nga xamante ne depuis des jours ñoom ñoo toog di veiller ci moom ñoom ñoo toog di ko jàppale donc c'était tout lépp lu fi mën ci amaat di ko amaat waaye comme yéen miin ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni fii nii daanaka endroit bu sacré la film bi waru fee bëri liñ fi wane itam waru bëri donc on se donne rendez tout en vous disant comme à chaque fois il faut défendre le projet et protéger le PROS